te comme maison bi moom day recevoir ay public nit yi dañ ciy ñëw lu bëri yoon donc dafay jaadu tey jii nii ci loo nga xamante ni si dafa jëm ci wàllu fàggandiku pour euh, coronavirus bi euh, ñu ñu ñu ñu jublu ci bu baax a baax a baax donc lii nga indi vraiment dinañu gën a jàppale donc alcogel yi nga indi euh, masque yi Eh, ak eh, marar yi nga fi indi vraiment ñu jappalé bu baaxa baaxa baax parce que marar yi bu nit yi dee dugg dinañ mëna raxasu raxasu gel yi aussi ñun dinañ koy mëna utiliser pour di pour di raxasu ñu loxo parfois suñu laalé yeen papier yeeg yoonoon yépp donc vraiment ñi ngi lay remercier bu baaxa baaxa baax te eh, gis nañ la aussi tamit bi corona bi commencé ba légui te yaangi dem ci ay bërëb yu bëri di di fa di fa di fa jàppale nit yi ci ñu gëna mëna fagandiku ci li nga xamanteni ni si moom mooy corona bi à travers ay masque yoy mayé à travers également ay ay ay ay gel yoy may ak yëpp donc vraiment ñu ngi lay remercier ci sa teew bi nga xamanteni ni si nga ko fi euh, ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir aujourd'hui ici euh, dans la maison de justice de Mekhe maison de justice ci ngay Mekhe lu reuy la parce que dañ daan jóge fi dem ba ay Thiès dem ba ay Tivaouane di ay ay ay papier wala ay situation yo xamanteni mënu ñu ko tok fi def ko fotum biir donc suñ ko yalla indi lé fi dañ koy sant diko diko di ko ci gërëm di ñaan nak képp ku doomu Ngaye te war ci mën jàpp rek bul bul bul ci xaar kenn bul ci xaar dara c'est l'occasion aussi de remercier les autorités locales yi nga xam te ne ñoom ñoom ñoo taxaw ba def def liggéey ba lii ak ba lépp ci pour Ngaye rek parce que ñun Ngaye rek moo ñu sox Ngaye rek moo ñu di ñaan aussi population bi eh, parce que ce geste là autant boo nga xam te na permettre nii ñu mën a xeex mbas mi ñëpp nekk loo xam te dañ koy approprier wu def seen yitte parce que duñ ko amul fi amul amul nëbboon tam mbas mi fii si ngaay te comme ñëpp xam nañ ko c'est l'occasion vraiment de ku nekk tagaat sa loxo xam li nga war a def xam xam xam fi xam ni nga ko war a xeexe te ni ko xeexe du leneen lu dul respecter respecter les mesures barrières donc su fekkee honorable indi na yu mel noonu jàppale leen wax dëgg yàlla ñu dañ ko ci sant di ko si gërëm di ñaan yàlla aussi mu nekk ay gestes yoo xam te ne si lu mu yàgg daf lay doon ak keneen koo xam te ne si aussi am nga volonté rek jàppale nga rek yàlla na yàlla yombalal la ko parce que c'est pas la première ko ci mel nii def na ko ci daara yi

le coordonnateur de la maison de justice de Ngaye Assalamu euh, sama mbokk yi ma Assalamu Assalamu alaikum, je euh, ma am mbégte bu rëy maison de justice pour nemmeeku leen Hall Sen liggéey ni muy deglu len, tamit hall seni Loko.

comme niñ ko doon defee démb ak bërki démb pour ñaaxaat askan wi ñaaxaat sénégalais ñaaxaat waa ngaay gi nga xam ni fii lañu fekk baax ñu gën a fagaru ci mbas mi beneen bi nag moo di woon ñëw aussi pour rafetlu implantation maison de justice fii si ngaay mexe muy loo xam ni lu am solo la ci doomu ngaay muy lu am solo ci ñi nga xam ni ñoo wëru ngaay ndax ngaay xam na ni commune la boo xam ne bu mag la village yi ko wër bari na am na ñoo xam ne sax dañuy jóge ci yeneen commune di fi ñëw donc loolu ñu koy rafetlu li nga xam ni nag boo ci gën a neex mooy maison bi dañ fi teg waa ngaay un jeune de rien du tout diplômé de la justice koo xam ni maîtrise bi jàng na ko xam na ko ñu jël ko teg ko ci ay loxo mu di ndaw ni ñun ñun nak lolu daf ñuy neex à lo xamni luñu bëgg la ci la que ni au niveau de Ngaye Mékhé jeune mu ngi occuper un poste de responsabilité et xam nañ ni bi mi ngi ci féliciter euh, le ministre de la justice maître Malik Sal ak vraiment son secrétaire d'État muy nek duo bo vraiment de tact et de maîtrise bo xamni ñu koy ci domaine de la justice ci sommes ndigalu président de la république bi nga xamni aussi depuis que mu nek fi aussi mi ngi œuvrer à ce que la population carcérale ñu nek dans de très bonnes conditions si les xey si la leen di demander ñu gont donc loolu nous gisé tay nous loolu donc dañuy nous féliciter ko fi surtout rawatina euh, loi bi nga xamni voté à l'Assemblée nationale ba nga ci le port de bracelet électronique bi nga ya yenn détenu yi jar ñu leen di téye dañ leen di takal leen ko nekk ñu leen dem pour que décongestion bi nga xamni euh, prison mu am solo ba ñom ñu nous dund vraiment euh, nekk droit ñu respecter mieux droit de vraiment de l'homme les droits de l'homme ñu respectés. ko respecter dans de bonnes conditions parce que prison lieu de privation d'accord mais warul nekk lieu de perdition donc nous sommes dans de très bonnes conditions pour que vous gens nga réinsérer dans le tissu social et économique du pays Nous sommes on est là nous sommes des frères nous sommes des vraiment collaborateurs désormais donc les plus xam ni soxla ngeen ko rek si vous man directement c'est bon wala ngeen jaar ci sama staff lépp dina egg si man vraiment di len remercier di remercier euh, le coordinateur aussi vraiment diko encourager parce que aussi ndaw la té man dafa am aussi lo xamni dama koy yag di wax mujjé puso mu réer lu jara a daw la donc la jeunesse de mexé dañu wara takku liggéey fonk sen bop parce que aussi aussi pour ñu responsabiliser aussi il faut nga wane ni yow mérito nga ko